messieurs les ministres, mesdames, messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Mes très chers collègues, je voudrais d'abord saluer l'esprit dans lequel les travaux de la commission ad hoc se sont déroulés et les échanges fructueux que nous avons pu avoir pour arriver à ces conclusions-là. Je voudrais aussi saluer la présence de nos collègues députés qui ont fait honneur à l'institution parlementaire en venant répondre à la convocation de la commission ad hoc. Monsieur le Président, tey comme démb ñun saa boo xamee ni nii justice institution judiciaire am na lu muy laaj walla lu muy gëstu mu jëm ci député ñu ñëw ñu nekk ay député laaj ñu pour ñu dindi seen malaanu kiiraay pour que justice mën a def liggéeyam ñun démb comme tey boobu taxawaay la ñu am mooy fexe ba dindi malaan mi pour mu dem tontu yi parce que nit buñ ko tuumalee dafa war a dem wuy ji pour que lañ koy tuumal mu setal deram setal boppam loolu mooy suñu taxawaay ñun yoruñu jikkoy nit koo xam ni gëm-gëmam lasper la bu ko neexee mu tawi ko bu ko neexee mu yolomal ko li ñu doon def démb rek moom la ñu defaat tey fii mooy fexe ba ñi ñu tudd daal ñu fexe ba ñooña ñu dem wuy ji parce que bu ñu wuy jee ah dinañu mën a setal seen der su ko defee institution judiciaire bi nga xam ne dañ ko respecté mën a def liggéeyam mes très chers collègues présomption d'innocence mooy nit ki du parce que dañu ko jiiñ dara rek ñun ñu condamné ko ki ko war a condamné mooy justice dafa nekk benn principe judiciaire boo xam ne ni principe bu dëgër la boo xam ni ci jamono bu nekk dañ koy war a bàyyi xel ñun duñu àttee li ñu def daal mooy yombalal justice pour mu dem defi gëstoom atte ku mu justice teg loxo nag ni la yaa def lii ñu xam ni booba yow yaa ko def li justice war a def ak yow mu def ko yow waaye daal képp koo xame ni nii am na loo xamee ni ñu ngi la koy toppee su fekkee ñëw nga fii ñun de en tout cas boo fekkee ni indil nañu ko ni dañu war a dindi sa mbalaanu kiiraay lii rafet mooy ñu dindi sa mbalaanu kiiraay parce que xam nañ ni tuuma wax dëgg yàlla alalu gor la kàccoor moomu ko kon nag ki ñu tuumaal dafay bëgg ci jamono bu nekk mu jéem a rafetal boppam parce que loolu rek moo ko mën a setal setal ko ci kanamu ay mbokkam setal ko ci kanamu ay njabootam setal ko tam ci kanamu ay xaritam ak ay nawleem yi nga xam ne ay nawle député lañ monsieur président magistrat yi ak avocat yi damay wax toujours ni benn bëgg-bëgg rek la ñu war a am mooy bu yoon jibee rek ñu fexe ba yoon jib c'est ce qu'on dit que les avocats et les magistrats en fait ils ont un désir commun c'est que partout et en toutes circonstances que la justice soit dite et que cette justice-là puisse être appliquée à tous les Sénégalais. Voilà la raison pour laquelle c'est important de, de, de lever l'immunité parlementaire de nos collègues. Monsieur le Président, ñun ci suñu bopp di ay député nañu nangu ni ay doomu aadama rek lañu comme ay doomu aadama lañu nag doomu adama dina juum dina tooñ dina def loo xam ne ni xaj na waru ko def waaye loolu ñun du ñun ñoo koy àtte ñun daal li ñu war mooy bu justice ñëwee ak ku mu ñu mën a indil ni ñu kii dafa am lu mu digaale beneen nit mu nekk ci procédure pénale ak lu mu mën a doon mooy ñu fexe ba yombalal justice liggéeyam parce que ñun dañu respecter institution judiciaire ni ñu respecter yeneen institution yi xam ne dafa nekk ci réew mi nit nag du nekk institution ba pare nag am fu mu féete ba pare di galgal yeneen institution yi loolu mooy suñu taxawaay c'est la raison pour laquelle ñun ñu demander à que ñu dindi seen madaanu kiiraay pour ñoom ñu mën a dem wuy ji kooku amul farfarloo mësuñu ko def démb defuñu ko woon tey bu ëllëgee tam bu amee duñ ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullah je vous remercie honorable collègue poursuivant toujours la procédure je donne la parole maintenant à notre collègue Siré Ndiaye rapporteur de la commission ad hoc Merci, Monsieur le Président. À la suite des propos